chaque dimanche beneen révélation bu bees jot. waaw noo tudd. man tas. tas na tas yaakaar. mais yow tas yaakaar yi gaa yëpp tas. teg keroog juróom maa jël Pikine tournoi ñu teg yëpp man maa jël. ba sëñ Fall. mais yàlla baax na nag xale laa. man bi nga daanee Ibou Second numéro 2 laa pare ci yow. mais keroog ñëw naa 10 millions ye. barki sëñ Bamba. kii moo dëkk nu mu tuddati. Pakala bu Mbour. ki jël ma maa ko daan jël gaskel si 10 yi. billaahi mais bii mooy sama deuxième fois. billaahi. dem nga final loo yëg. waaw mais dara ñun ay xale lañ barki sëñ Fallou Mbacke ay xale lañ. tas yaakaar ñaata at nga am. man barki sëñ Bamba 2000 laa judd billaahi wallaahi taalaay barki sëñ Abdoul Karim Mbacke ma yaakaar tey ak ëllëg. billaahi. Ahmed Bousso. Boy Faye. dem na final Faye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu. fay. nga dem final loo yëg. waaw. di sant yàlla ñaar yàlla may ma yóbbu ndam rek ci kàttan Seydina Mohamed loolu laay ñaan daal maa ngi soo ko tàmbali dana nekk sama première finale bi may njëkk a jël ci barke Seydina Mohamed incha allahu rabbi. xam nga ki ngay dajal tas yaakaar. waaw tas yaakaar yàlla baax na yàlla rek moo mën a tas yaakaar doomu aadama. waaye nit du tas yaakaaru doomu adama bu ko defee rek daa xamul baax na. jaajëf booy jaajëf. ta arène Adrien Senghor dimanche Sonin a Garida a tegan piqué 1 million 1 million dimanche a gar arène Adrien Senghor ten anam sa tegan piqué mbayang euh, Maodo Faye fa Faye Mbodj na ndef kan animation fe Maodo boo xoolee le programme maanaam Loul Sessène Sarle ak Goundour de Nangoy Tamana na le 7 ba le 8 mars le 7 ba le 8 mars a million samedi 7 500 mille million de Nangoy Tamana stade Caroline Mbour stade Caroline Faye maanaam Mbour a tegante ke 3 millions parrain fe Gorgui Sy

le premier janvier 2020 Diaks production fii ci terrain gaal gi mbokk yi mu ngi noonu final baa ngi dox ci diggante tas yaakaar ak booy fay ndeysaan ndeysaan ya ngay wax di ree am na lu wax tas yaakaar boo ko xoolee xam ne xale booy fay boo ko xoolee xam ne xale la ñaari xale ndeysaan booy fay nee na bi mooy sama première finale tas yaakaar nee na jël naa njurum njurub bërki démb na dem naa ci dix million yi mu ngi noonu tas yaakaar mooy Mor Absa Deme Mor sa dem ndeysaan ak Ahmed Bousso ndeysaan ñu gën final poids lourd baa ngi noonu Diaks production terrain gaal gi le premier janvier 2020 Boy am na lu mu tari sànni ko ci ginnaaw tas yaakaar Boy Faye Boy Faye jàpp na ko tas yaakaar bañ na Boy Faye xale bi ngay bëreel am na doole Boy Faye takk na ko dana gaaw daan na ko Boy Faye jël na final bi Boy Faye daan na tas yaakaar doole doole Boy Faye daan na Boy Faye jël na Boy Faye daan na final ba Ahmed Bousso alias Boy Faye lu ma seetlu ci mbër ba wax la dana am wala njort nañ ko tas yaakaar mi xale la boo xamante ni ku ko jàppale ci làmb mu dem ku juddu 2000 ba 2020 ngay doog a dugg ci sa 20 ans macha allah ku ko jàppale ci làmb mu dem nañ dem ci Mikalis 2020 Boy Faye maa ngi lay ziar. waaw mi ngi lay siyaar bu baax a baax. di la waat bu baax a baax. waaw ñu lay delloo di la bu baax yow tamit. ñu dugg ci at bu bees sa première finale nga jël ko loo yëg. waaw sant yàlla rek ci at mu bees mii ni ñu duggee ci ndam di wax ne yàlla moom moom jaam ñi moo leen moom moom laa doon ñaan may na ma mënu ma fi kenn yàlla dogal ma jël ko ci seen loxo rek di ñaan li des ci suma saison yëpp nekk saison bu neex te gars yi jël suma combat bàyyi di ay xale lañu toll si bëre na ñëw ñu bëre lamb day wees de. na ñëw ñu bëre rek mooy loolu noonu. bëre dóor bi ngay wax. waaw bëre door bi laay wax. mënu maa def onze combat ñu may daw rek. nañ ma jël ñu bëre. ku ma ci bëgg foo jëm gënoon ma palmarès. foo jëm fu ma jëm. na ci sama ruq di entraîné rek ak sama staff. bëre dóor ñoom Sall Ngari Ibrahima Niang sama mag ñoom nekk seen ginnaaw rek. ku ñu jox nag ñu bëre actuellement booy fay pare na pour ñëpp ku am licence damay bëre ak yow. damay bëre ak ñëpp. bëre dóor bi kan nga teg sa bër kan nga jàpp ne moom booy fay combat bu neex. ki fi ñëpp bàyyi mooy kan ku fi ñëpp ku fi ñëpp bàyyi rek. amul kuñ fi bàyyi. non non ku fi ñëpp am na ñoo xam ne am na dañ la nañ ma leen jox wax ko booy fay. ñoom ñoo la gën a xam li xew. waxee ma xam ñoo la gën a xam du ma wax. ñu fi ñëpp. sëñ Bass dégg nga nee na ki ñëpp bàyyi moom la soxla moom booy fay mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci wasaare lamb ak beneen champion ak beneen lamb jaa jëf